salaam suñu mbokk internet Kulanjan TV dal leen ak jàmm ci sen benen numéro ci sen émission Made in Galsen comme niñ koy defee sa su nek Made in Galsen mu nek ben émission bo xamante c'est pour les jeunes entrepreneurs du pays peu importe domaine bi nga xamante mom moom ngay yëngatu te nag ki ñi seet si mu tuddu Kadia Dramé muy yëngatu ci walum produit halieutique entreprise am tuddu Pure Casa mais laata ñuy yaatal waxtaan bi rek dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo suñu mbokku téléspectateur Kadia ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu ñun ñi nga xamante ne yéen a ngi ñuy seetaan maa ngi tudd Kadia Dramé. alors Kadia Dramé mun nga ñoo wax sa parcours maanaam sa jaar-jaar ni nga def ba grimpé fii nga xamante ne moom nga yegg si tey. ah mm, mun ñoo ne ni que na méttiwul mais sant yàlla alhamdulilah. parce que ñoo ngi ñoo ngi ci jéem a ñoo gérer dal jéem na fexé ba mëna ubbi sama bopp sama entreprise ci euh, à l'aide de mon mari en fait. Mm. mais métti na méttiwul parce que genre dama demoo Casamance rek ben moment dafa ben ben 10 jours non rek la demandé fofu non après ma gis produit gis vu bi affaire non non mané ah pourquoi pas plus même que ñëpp a ngi liggéey ñëpp a ngi jàpp ci ay yéré dal li lé lé lé mais pourquoi pas ma yëngu ci affaire de produits halieutiques ay sa mo expliquer ko monsieur mu nangul ma en plus mu jappelé ma ci lépp voilà ba ma ubbi sama boutique pur Casa ba légui ñoo ci ñoo ci sante yalla dal alhamdoulillah alors pourquoi le nom pur Casa. Euh, le nom pur Casa genre. dama toog nii rek di xalaat di xalaat ban ban ban tour laa war a laa war a jox sama entreprise bi ma xam ne ay produit halieutiques te produit casamançaise laa wax te bu ma say produit di dara dara loo damay bu loo xam day nekk j'ai comme produit fu ma koy jëlee Peacemaker fu ma koy jëlee ci mhm. produit pur lañ fay defar. sans mélange sans mélange sans rien du tout donc ma ne ok donc pourquoi pas ma def pur casa Peacemaker Casamance laa demoon laa amee xalaat boobu noonu. te mhm. foofu laay c'est un produit ma donc pur casa la koy def tout court. Mm-hmm. alors mën nga ñu expliquer un tout petit peu yi nga xamantene ne moom ngay jaay. waaw damay jaay lépp luy produit halieutique. Mm-hmm. damay jaay poisson fruits de mer euh, paañ yoxoos tiga dege araw. Mm-hmm. laax lépp daal lépp loo xamante dañ koy soxla daal ci ci ci ci kër. Euh, ci waañ lépp dama koy jaaye danga koy jaay waaw ak aussi ñoo ngi andi aussi euh, ceeb aussi mooy ceebu mbay bi aussi mhm. ñoo ngi koy waaj andi pour Casa tamet, lépp daal lépp lo xamante dal daal day jóge Casamance parce que ceebu mbay bi fofu ci boppam laa koy la laa koy jëlee mo andi ko. ñeu exposer ko fini nii ko fii alors parlons un peu de l'entrepreneuriat nan nga gisee entrepreneuriat au Sénégal. ah entrepreneuriat ah métti na daal parce que c'est pas du tout facile en fait parce que euh, bëri nañ ay jigéen yoo xamante ñoo ngi bëgg def entrepreneuriat am na ñoo xamante ñoo ngi ci genre comme jigéen am na ñu bëri ñoo xamante bëri nañu comme nu may wax rek bëri nañu bëri nañu euh, bëri nañu expérience am aussi bëri nañ ay projet mhm. mais liggéey bi ak jàppalante bi entre nous moom moo yombal mhm. ci ñun moo tax c'est pas du tout facile mais sant yalla yalla na ci yalla jàppale ñu ñëpp ñu mën ci xaj. ñu ñëpp ñu mën ci gis suñu bop amin alors euh, gis nañ ci nga xamante mom moy produit bu njëkk ba dañ daan gis bu dee keccax ngay jënd wala ay pañ ak yoy mhm. soit ci mbuus lañ la kay defaral. Mhm. wala ci ay euh, kayit ñu mhm. gis ni nga xamante mom nga défé format bi ni mu nga ñu expliquer un peu c'est pour plus attirer les gens pour ñu ñëw wala communication bi. non c'est parce que man dama bëgg loo da fay set lo xamanteni buma koy jaay client bi dina ci kontaan genre euh, bëri nañu suñu ay maman ñoo xamanteni ñoo ngi ci marché bi machallah dañu jaay ay produits mais dañ koy ba def ko ci

moo tax ma il faut que ngay veiller ci li nga xamante ne propriété bi voilà ci ci la lay ci la laay parce que c'est pas sûr. Mhm. voilà lo xamante day dem ci biir voilà wourul da c'est ça. alors euh, mun nga ñoo expliquer parce que gis nañ tank aussi à l'arrivée gis nañ fi ay carottes yooyu yëpp mhm. lépp ci produit yi lay bokk pour ñi nga xamante ne tey jii dañuy bëgg a ñëw ci Pure Casa lan nga la xamante ne buñ fi ñëw yëpp dinañ ko am

alors sans wax nga un peu partout. Mhm. relation clientèle comment tu fais avec les clients les clientes ça je veux dire parce que mhm. les mhm. relation avec les clients. ah parce que euh, franchement je remercie mes remercier clientes. parce que baax nañu te parfois commande mon wala comme j'ai GP bi am problème wala parfois man sama jëm ma jum ci commande bi changer def lee mhm. Tu dañ ma ciy comprendre Moi, tax daal dama len di remercier ñoom parce que ñom ñom ñom ñom ñoo ci jàpp en fait. lépp compréhension Voilà, waaw lépp compréhension la ñom dañ may comprendre te dañ ci jàpp à chaque fois. à chaque fois mhm. dañu am ben partie bo xamante c'est pour.

ci li nga bëgg parce que nit lépp loo xam te moo nga bëgg te moo nekk sa xol boo ci boolee yàlla nga gëm ko ne lii bëgg naa egg fii ak moom incha allah yàlla dala ci jàppale mais genre mënoo ne bëgg naa liggéey bëgg naa liggéey toog sa kër toog sa ruq rek ne bëgg naa liggéey yàlla baax na yàlla mais yàlla baax na da ngay teg sa tànk ci mbedd bi teg sa tànk foo xamante ni mën naa ko dem jëli fii nii donc bàyyi ma dem jëli ko mais mënoo toog sa kër comme parfois man dama damay am ay woo di ma laajte di ma naa bëgg naa liggéey mais dama leen boo bëggee liggéey da ngay génn mhm. doo toog ne bëgg naa liggéey naka laay def pour liggéey mais damaa bëgg liggéey man sama jëm bopp damaa bëgg liggéey mais damaa forcé pour que ma mën a liggéey parce que xam nga genre ñu bëri xamuñu sax ni que damay say déjà mhm. parfois bu ma ko waxee ñu sax dañu ma naan déedéet mhm. mais genre xam nga la plupart fem femme fa femme femme de ménage boo nekkee ci sëy pour nga liggéey day métti. Mhm. mais boo nekkee ci sëy ak boo nekklu ci sëy war nga même boo nekkee sa jeune sax war ngaa fexe ñefe. amal sa bopp amal sa bopp dara parce que basé wu ci nit dafa métti. Mhm. chaque jour xorom bi ñu la ko doon jox may chaque jour sa bu subaa ñooy la non non c'est ëpp na mhm. donc nit ku ne da ngay gëm sa bopp. ñefe fexe dem jëli li nga xam te moo nekk sa biir xol. c'est ça. alors wax nga ko léegi comme euh, nit ñu bëri gëmuñu ne euh, xamuñu ne yow ne da nga marié mhm. nan ngay mën a allier les deux le fait d'être ici au travail d'être à la maison entrepreneuriat est ce que loolu yomb na ah nit loo loo loo rek mu métti lo metti rek mu métti boo jëlee boo jëlee boo bëggee jël liggéey bi ak sey bi nga bëgg parce que tamit ni tamit bo bo euh, liggéey sey mo moy moy farata <laughs> donc euh, da ngay xol nooy mooy gérer sa ménage ba nga xamné ne euh, sa jëkkër du la mere sa liggéey di nga ci gagner ja mm-hmm. da ngay xol noo gérer wé comme man parfois ma liggéeyee de 10 h 11 h ba ba ba am naa assistant mooy xëy 8 heures man 10 h 11 h 18 h damay wacc may def son portable va pas déranger ba demee encore là, commencé waat. nga toppatoo sa kër ma toppatoo sama kër. c'est ça man noonu que ko géré. Mhm. tout ça nga am de temps boo xamante c'est bien défini. voilà c'est ça non, laay à partir de 11h mon téléphone ku ma dit di jot à partir de 18h ba ma woowee dama jot. Mhm. Non, laa ko géré parce qu'elle est occupée à euh, faire son ménage. Mhm. toppatoo li nga xamante ne moom mooy këram. comme ni ngeen ko gisee rek kadia Pur Casa la am comme invité euh, tay si émission Made in Galsen expliquer na leen sank produit yi nga xamantene mom mo fi am lepp lo xamantene rek rek euh, jigen bu ñewé fi ni dina ko soxla produit halieutique ak yooyu yëpp wax nañ sank ci li nga xamantene mom moy entrepreneuriat est-ce que yow ma laaj la ben question mm-hmm. jàppoo ni tey jeunes yi buñ ñu leen jàppale maanaam que ça soit l'état wala ñi nga xamantene les bonnes volontés buñ leen poussé wee tuuti dinañ mën a demal seen bopp wa, nit di euh, genre mën nañ leen pousser ñu demal seen bopp mais comme par man euh, ce que je me dis à chaque fois est que nit à chaque fois boo basé wee à chaque fois ci nit ki parce que nit bu la jàppalee tey bu subaa mën a la fayeeku ma ko nii tu mhm. comprends mais état bi war nañoo jàppale xale yi ngir yàlla tax parce que ñun bëri nañu am nañu bëri nañ nit yoo xamante ni bëri nañ ay projet mais moyens yi mooy problème bi mhm moy ba la ñuy defee seen projet moy sen problème mais buñu amé ko xamanté xamante mën nañ leen a ñu jappalé leen ñu liggéey parce que bëgg nañu liggéey dal mhm. parce que mu gisee yenn yi ci mbedd bi ak suñu maman yi parfois ñu xam ne nekk ci mbedd bi di jaay li di jaay lii damay xam ko bëgg nañu. Mhm. parce que mo gën ko xamné chaque jour day nekk di ñaan. di tàllal loxo chaque jour di tàllal loxo chaque jour donc dañoo war a xool ñooñu nga xam ñoo ngi ci mbedd bi ñoo ngi ñafe ñoo ngi kii ñu xool ñu leen di jàppalewee ci dara ñu jàppale la ñoom tamit ñu mën a jàpp ci dara. ci dara alors euh, gis nañ li nga xamante ne moom mooy Pur Casa. déco bi ak aussi ni ngeen défé sen euh, produit mhm. machallah qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres parce que gis nañ ne nak nit yi bari nañ ci bu euh, côté euh, ay produits. Mhm. ku ci nek ak façon bi ngay jaayee. Mhm. yow lan moy sa différence par rapport aux autres.

borom Pur Casa la ñu invité woon expliquez expliquer un peu sur l'entrepreneuriat ici au Sénégal ak ñi nga xamante état war nañu mën a jàppale ñi nga xamante pour ñu mën amal seen pour demain sen ay entreprise Kadia lan ngay wax suñu mbokku internet ah merci beaucoup maa ngi leen di et merci beaucoup pour euh, l'invitation aussi. C'est vraiment gentil et. nañ gëm suñu bopp daal ñun jigéen ñi ak ñun ñun ndaw ñi daal nañ gëm suñu bopp ñun ñëpp ndax liggéey bi yaatu na euh, bëri na daal ku nekk xaj na ci nañ ci xajalante rek jàppalante. alors comme li mu wax ku nekk xaj na ci xanaa rek dañuy bàyyi moom mu daal di joxe li nga xamante ne mooy numéro de téléphone bi ak aussi les pages à suivre sur les réseaux pour képp koo xamante ne bëgg na ay produits alietique lépp diwtiir keccaax. Il y a loo bëgg rek boo ñëwee fii Casa di ko am ka joxel numéro bi ak page yi. ok numéro bi 118 430 118 38 am Instagram pur Casa am TikTok aussi pur Casa am Snap Pure aussi. Mhm. Voilà, les le numéro 118 430 118 38. alors il y vous savez, nga xamante ne képp vous xamante ne fini, vous fii nii livraison wala nga déplacé vous ñëwee fini, nii ci nga xamante di nga mën a fekk si madam madame euh, madam Fall wala nga fekk assistante am fii nii pour ñu mën leen accueillir comme vous le ici aussi am na ay pañe yoo xamante ne nii pour képp koo xamante ne da nga bëgg a jënd ration rek boo ñëwee fii nii moom dina la mhm. defaral ba nga kontaan di leen jox rendez-vous rek beneen numéro ci seen émission Made di Galsen